Madame Khadidienne Gaye, ministre de la Culture, de la Jeunesse. Pour trois minutes. Ah, asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk waa Mbour di nuyu les seize communes yi nga xamante ne ñun ñoo bokk département de Mbour bi te man ma cosaanoo Joal Fadiouth Ngazobil nekkoon fa tey si suba jóg amoon jii nii sëtu ageen ànd ak sëtu jàmboon gi nag di gudd man ndawu Sénégal man yéen lay waxal yéen ndawu Sénégal yéen yéen kii nekkuma ak moom dëkkuma ak moom waaye sañ naa wax nekk nelawul ba yandoor lekkul ba suur naanul ba mandi ndax yéen ndawu Sénégal te man nii li ci des mooy mottali yéene bi le 17 novembre ci kàttanu yàlla suñu borom da ngeen teel a xëy fa ngeen daan aw da fa awaat te dañoo fa yéene ci département Abdou Mbour bi yëpp au niveau de toutes les 16 communes du département bëgguñu fa 90 pour cent dañ fa bëgg a 95 pour cent au minimum waa Joal nag nee na ak yeneen ak yeneen ak yeneen wax ji matul te guddal jaru ñu ciy jaaraat maître Ngagne Demba Touré wax na sànq le nouveau agenda le nouveau référentiel des politiques publiques de développement mise en œuvre bi nag moo des te loolu nag fokk yéen ñii ngeen mun ko jox majorité jox ñu ko ñun ñii ndax assemblée nationale réforme buñ ko bëgg a jàllale ñu mun ko fa jàllale asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. madame la ministre respecté nga ko. merci léegi nag kan moo dëkk Sandiara. kan moo dëkk Sandiara. kon ministre Serigne Gueye Diop du département de Mbour de la commune de Sandiara ñu jox la kàddu gi. yéen waa Mbour asalaamaaleykum dégguma leen de dégguma leen de. dégg guma leen de est-ce que bëgg ngeen liggéey est bëgg ngeen ay usine est-ce que bëgg ngeen jëriñ Sénégal candidat ngi nii Ousmane Sonko ngi nii dama bëgg a wax juste ñaari wa pour wax leen Ousmane Sonko yan façon nit la Ousmane Sonko du nitu neen Ousmane Sonko dafa nekk koo xam ne guddi ak bëccëg bëccëg mu ngi xalaat Sénégal bëccëg mu ngi xalaat yéen la jeunesse sénégalaise mu ngi seet chaque fois yan solution la ñu mën a am pour suñu mën a changé jaral na ko lu ne kon monsieur le président dama bëggoon juste témoigner chaque fois su ñu nekkee en conseil de ministres li ngay wax mooy la jeunesse ne peut pas attendre Ousmane nee na mënu leen xaar. milliards. Chaque fois en conseil de ministre, li ñuy wax mooy góorgóorlu leen ñu am ay solution ndax yéen vous êtes 70 pour cent de la population kon loolu moo waral ñu ngi liggéey guddeeg ca pour saa monsieur le président man Mbour laa jànge fii la màgge je peux diir dire que Mbour suñu la jàpp jàpp nañ la et je peux vous dire que le 17 novembre waxuma 75 pour de baaxul waxuma quatre vingt pour cent baaxul quatre vingt laa bëgg ñu am magistrat à l'Assemblée national dañoo nekk à un moment critique yéen les seize communes laay waxal les communes de la zone Safé les élus de la commune de Diegem ak waa Joal waa Fadiouth na ngeen jàppale monsieur le président Ousmane Sonko su fekkee ne dañoo bëgg a changer l' avenir de ce pays assemblée nationale dañ fa war a am majorité suñ ko deful lépp luñ fa def ñu xëpp ci suuf or nous on n'a pas le temps président Sonko neen on a pas le temps maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam jërëjëf. merci beaucoup monsieur le ministre merci beaucoup ci discours bi dans le département de Mbour également sans doute dégg ngeen tout à l'heure maître Ngagne Demba Touré di wax le rôle que la jeunesse joue dans ce projet am ngeen ci yéen waa Mbour jeune boo xam ne ba mu ñëwee en quelque temps ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàcc ñi ngi koy bëgg a rey di dugg ci presse bi parce que daa débusqué seeni sàcc ñu ngi koy nuyu ci ginnaaw muy le DG de l'ASER Jean-Michel Sène